ok incha allah incha allah ñu ngi war a jël tey aaya téeméer ak juróom fukk ak ñaar bi muy 152 ci suratul an'am ñu ñaari page yi mujj ca saar ba wala taqrabu maal al yatim ay 152 suratul an'am ولا تقربوا مال اليتيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñi ngi santaar suñu boroom gannaaw bam ñu fi dajale ci jaamu yàlla gannaaw jaamu yàlla gu màgg gu ñu romb muy li ñuy tuddee iidul adha di feetu tabaski ak la nga xam ne moom la àndaloon ca woor arafat ya ak bis yu tedd yooyee ñu ngi ñaan suñu boroom mboolem jaamu yàlla yañ ca def yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko dépense yañ ca dépense it yal na yàlla wóotalal ñu la nga xam ne moo ko gën waaw ci bis yooyu tamit yàlla dogaloon na ñu boole ci ñaari ndaw ci ndaw yi jàkka ji muy diggante Jibi Faal ak Fatima Sarr yal na yàlla barkel seen diggante mboolem ndaw yi jurit yi tamit yal na yàlla wërsëgal leen sëy yu barkeel ak njaboot gu barkeel gis nañ ne aj Makka ga am nañu jot a ñëw waaye am nañu fa des bokk na ci loolu suñu jàngkat bi di Cheikh Ousmane mook ña fa des ñëpp yal na yàlla yombalal leen ba ñëpp dellu seeni kër ci jàmm te mboole mu tuyaay ba yiñ fa jël it yàlla boole ko ak ñun kon incha allah dañuy bàyyi ak Alioune Sarr ma jëlañu suñu bind bu jëkk waaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله فيك suñu borom subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mu ne ولا تقربوا مال اليتيم bu leen jege alali jirim illa billati hiya ahsan lu dul ca la nga xam ne moo gën a rafet xatta yabluga ashudda ba baa muy jot ndëgër laa yem wa awful kayla wal miizaana bil qist matal leen natt ya ak peese ya cig maandute laa nukallifu nafsan illa wus'aha waaye teguñu duñu teg benn bakkan lu dul la nga xam ni mooy ca kàttanam ga wa ida qultum faadilu walaw kaana za qurba su ngeen dee wax maandu leen même bu dee maandu ga day nekk ci aji jega ñaale wa bi ahdillahi awfu la nga xam ne mooy digub yàlla bi matal leen ko dalikum wasaakum bihi laallakum tazakkaruun loolu nekk na ñeel leen du ñu leen dénk ngir ngeen bokk ci ñuy fàttaliku وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه te lii it mooy sama yoon di yoon bu jub kocc ngalawaay topp leen ko wala tattabiu subula fatafarraqa bikum an sabili bu leen topp la nga xam ni mooy ñall ya ca mooy yoon yu dëng ya kon de dana leen teqaleeg yoonu yàlla wa zalikum wassaakum bi loolu day nekk na ñeel leen lu ñu leen dénk laallakum tattaquun ngiree ngeen doon ñu ragal yàlla mbokk julit bi ñu fi daje semaine bi jiitu tabaski gi ñi ngi mujje woon jàng benn aaya aaya boobu ubbi fa suñu borom di waxe ni qul taalaw atlu ma xarama rabbukum aleykum kaay ma jàngal leen li yàlla araamal ci yéen abdullah ibn masud radiallahu anhu daana wax ki bëgg a xam testament yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi mu bàyyeel xeet bi tamponé ko na jàng ñetti aaya ya nekk ca suratul an'am muy aaya téeméer ak juróom fukk ak benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar ak téeméer ak juróom fukk ak ñett benn aaya ba jàngoon nañ ko suñu borom mu ne kaay ma wax leen li ma araamal lu jiitu mooy bu leen bokkaaleek yàlla dara mooy la gën a màgg ci lu yàllay dénkaane mooy la gën a màgg ci lu xaram ñaareel ba def leen njekk ci way jur ya muy wane kon bokk na la gën a xaram gannaaw bokkaale ñaawal jëm ci say way jur mu ne it bu leen lekk bu leen nekk di rey seeni doom ngiree da ngeen a ñàkk lool it nekk musiba bu rëy doonte ne waxoon nañu rey gañ daan rey bu jëkk mooy gas suul waaye bokk na reyin bu bees mooy jël sa doom amul lenn loo ko xamal digganteem ak boroomam jàngal ko àdduna ba mu toll ne yow mu jeng yoonu yàlla bokk na ñeenteel ba suñu borom aramaloon mooy ngalawaay bu ñu rey bu ñu jegee benn façon ñaawteef ca la cay bopp ba mooy njaaloo juróomeel ba suñu borom ni bu leen rey benn bakkan bu yàlla aramal lu dul ci dëgg waxoon nañ leen ne fukki ndénkaane la tey ngi mi ngi noonu ñu war a jël juróom yi nga xam ne moo ci des ñeent yi benn aaya moo koy tënk mooy lan bu leen jege alali jirim lu dul nam gën a rafete mbokk jirim mooy képp koo xam ni bi baayam di dee majooragul alal jokoo baayam bàyyee suñu borom mu ni buñ ko jege ay buñ ko jege di ko lekk mu bokk ci bakkaar yi gën a màgg yi nga xam ne day alak doomu aadama yonent bi boole woon kon muy sabul mubiqaat bokk na ca lekk alali jirim yi ñu ngi noonu jël àqu jirim waaye suñu borom mu ne lu dul nam gën a rafete ca may kon alal nga jël ko denc ko loolu day lu baax la waaye gënoon naa baax na nga fexe noo koy fule bu dee ab toola noo koy toppatoo bu dee alala noo koy dugale ci projet bu koy yokk lu dul nam gën a rafete ba baa nag muy jot kàttanam kàttan googu ñaar la mooy mu majeur ci at waaye it mu am lu ñuy tudde rushdu ca mooy mu am la nga xam ne mooy ak mat gu mën a gérer alal waaye bu demoon it ba am ñaar fukki at te gis ñu ci moom matuk mën a gérer alal alal jooju dañ ko war a continuer di ko ko gérer ñu xam ne it taxaw boobu nga ciy taxaw yonent bi alayhi salaam wax na ci lu rëy nee na ana wa kaafirul yatim ka haatayni yowm alqiyaama nee na ñaari baaraam yi ni ñu lënkaloo ki nga xam ne dafa taxawu ak jirim maak moom noonu la ñuy mel yowm alqiyaama muy yaakaar bi nit war a gën a yaakaar ci tabbi ajjana gannaaw ba ay darajaam kawe ci biir àjjana bokk na ca la nga xam ne mooy taxawu jëriñ fillahi alhamdu bari na lenn ci suñu ndaw yoo xam ne ñu ngi tasaaroo diggante Italie Espagne France ak yenn créé benn association bu ñuy tuddee taxawu jirim am nañ ci yéen yu rëy ci biir Sénégal yal na yàlla jàppale leen ci loolu suñu borom mu ne gannaaw ba su ngeen dee natt wala ngeen di pesé ngalawaay def leen ko ci maandute muy doon lu doy waar léeg-léeg nga gis contrôle des prix yi di dugg ci bitig yi borom bitig yi tiit di leen corrompre ak yi kenn xamul waaye mbokk julit yow boutique bi yaa war a fexe ba moyen boo mën a def ba xam ne say balance baax na loolu da nga ko war a def bu ko defee nga peser ci maandute bañ a nax say client waaye tey demal ci marché bi lu dul lu néew lu yàlla jënd demal tey nga jënd ndawal laam sukkar laam lu mu mën a doon ñu peser la 10 kilos nga dem ci balance normale peser waat ko fa soo amee 9 kilos am nga lu baax loolee mbokk da ngay gis musiba la loolu moo tax ba ay yi bi mu wàccee commerçant yi nekkoon Madina yal na yàlla yërëm koo xam ne nii tamit jóge na fi fan yi passé ci fan yi idi muy Aboubacar Jaabiri aljazairi nee na xatta moom ba bi ñëw Madina amul benn marché booy dem wala benn boutique booy dem lu dul commerçant bi bu lay jaay dana la peser lu ëpp lam la waroon a jox gis ngeen ngiree rek mucc ca la nga xam ne mooy ayib donte ne la yàlla santaane woon mooy alqist kilo la jox ko kilo vingt kilo jox ko vingt kilo liibar jox ko liibar waaye ñoom dañ doon coobarewu def lu ëpp gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala nag ne teguma bakkan lu dul lu mu àttan ndax it léeg-léeg dana jafe mu bañ a manqué ay un gramme deux gramme ak yooyu waaye loolu yàlla du la ko toppe borom boobu it ne bu ngeen dee wax maandu leen même bu doon da ngeen di atte seeni jegeñaale ca loolu itamit mbokk julit gis nañu ne suñu borom mu ne day leen wax dëgg bu maandu même bu dee dëgg gi day dal ala anfusikum awil waalidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqira na doon yow boo waxee dëgg gi condamné la wala boo waxee sa ndey dugg wala boo waxee say jegeñaale wala boo waxee borom alal jële doon defal teraanga wala faqir suñu borom mu ne ñoom ñëpp fallahu awla bihima nga fexe ba am ngërëmal yàlla ca la ngay seede moo jiitu ngay am ngërëmal kum mën a doon ci jaami yàlla yi ida qultum faadilu maandu leen ci seeni atte maandu leen ci seeni seede même bu dee aji jege ñaale akub doxandéem teewul maandu leen gannaaw bi ahdillahi awfu digub yàlla la ca jiitu mooy yàlla diggante ne ak ñun ñu ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla yow la ñuy jaam loolee nga dig yàlla war nga koo matal julli ya koor ya zakaat ya jébbulul ga waaye xatta dig yi ñuy diggante ñu seedaloo ko yàlla nga la waay matalal loolu yonent bi alayhi salaam nee na suñu borom yàlla nee na ñett ñii day man may xulóog ñoom yowmal qiyaama ana xasmuhum yowmal qiyaama may dàggasanteeg ñoom te yaakaar naa ku dem yowmal qiyaama moo di dàggasanteeg yàlla say mbir du baax ñu ngi noonu mu ne bokk na ci ki jël as gor dem jaay ko jaam lekk njëgam bokk na ci ki woo nit liggéeyloo ko mu def la nga ko santoon ba pare fayoo ko waaye bokk na ci koo xam ne dafa diggante daal di jëfandikoo kàddu yàlla ñu ngi koy seedaloo yàlla ah ba pare mu daal di wor loolee kon digg yàlla yi matal leen ko suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala bi mu ñu waxee ñeent yi mu ne lii nag maa ngi leen koy dénk ngiree ngeen doon ñuy xalaat na am aayu yu jëkkee def na ngir ngeen xellu képp ku am xel xam na ne def lu ñaaw jëm sa waajur baaxul rey nit baaxul njaaloo baaxul amma nag lii yàlla wax fii dafa jege passion doomu aadama lu mel ni alal lu mel ni atte nga xam ne nii dafay say jege ñaale lu mel ni ay dig nga xam ne des fois li nga diggante mën nga caa bañ a gis say intérêt waaye suñu borom mu ne ngir ngeen fàttaliku ay fàttaliku sëñ borom jàll wa ala bi nga xam ne moo gën a kawe gën a mag lépp amma ndénkaane bu mujj bi mooy lan borom bi nag ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabi'uhu sama yoon nag mi ngi nii nekk yoon bu jub ngal la way topp leen ko mbokk yoonu yàlla dañ koy topp waaye ndax doomu aadama mën na topp lu mu xamul déedéet naka la ñuy toppee yoonu yàlla njël bi nu topp yoonu yàlla mooy jéem a jóg jàngi lan mooy diine yàlla boo ko jàngee ba xam ko ca ngay nag doog a mën a topp yoonu yàlla yoon boobu nga xam ne ñi ngi koy ñaan yàlla dix-sept fois lu mu néew néew bu su nekk ñaan nañ ko ko léegi ci kanam tuuti dañ ko ko ñaanaat te muy ihdina siraatal mustaqim borom bi nee na siraatal mustaqim haada siraatal mustaqim mboo ko alquran ji mooy siraatal mustaqim bi ngay ñaan yàlla ci julli yàlla jubal la ci borom bi mu ne yoon waa nga ne mooy suma téere lan moo koy leeral muy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon da ngay boole ñaan siraatal mustaqim góor góor lu jéem a xam teer bi yàlla bi jëm ko dund sunu borom mu ne topp leen ko te bu leen topp ñelli yi yonent bi alayhi salaam ibnu masud nee na bi aaya yi wàccee dafa rëdd benn rëdd bu gudd bu jub daal di jël ci cati baaraamam rëdd ci ndeyjoor côté càmmoñ côté ndeyjoor mu ne yoonu yàlla baa ngi ne jub kocc gis nga yoon yi nag jàdd gauche droite amu ci benn yoon lu dul am na seytaane bu fa taxaw di woote te loolu itamit mbokk mi ngi noonu bi yàlla yónnee ab yeneen tam woote mi ngi noonu di woote jëme ci yàlla am na ay seytaan yoo xam ne ku nekk traîner saw yoon di woote jëme te la nga xam ne mooy naari jahannam borom boobu subhanahu wa taala nag mu ne lii day maa ngi leen koy dénk ngir ngeen doon ñu ragal yàlla mbokk ñetti aaya yi nekk na ci aaya fondement diine l'islam te itamit dalay won ne ragal yàlla kenn mënu koo am lu dul da ngaa xam moo tax suñu borom ne lii la lii la lii la dénk naa leen ko ngir ngeen am ak ragal yàlla yàlla na yàlla wërsëgal ñu ragal yàlla mi ngi noonu incha allah.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون barakallahu fiik suñu borom mu ni summa aatayna muusa alkitaab gannaaw ba joxoon nañ muusa téere ba tamaaman ala alladi axsana mu nekk loo xam ne day mottali ca la nga xam ni moom la rafetaloon wa tafsilan li kulli shay'in mu nekk téere buy teqale lépp lu mën a doon wa hudan wa rahma mu nekk njub ak yërmaande laallahum bi liqaai rabbihim yuminuun ngir ñoom day di yahud ya daje ba ñuy war a daje ak seen boroom ñu am ca la nga xam ne mooy yaqiin ngëm gu wóor wa haada kitaabun anzalnaahu mubaarak lii day téere la boo xam ne ñun yàlla ñoo ko wàcce muy téere bu ñu barkeel fattabi'uuhu wattaqu la'allakum turhamuun topp leen téere bi ca ngeen ragal yàlla ngiree ñu yërëm leen an taqulu ngiree ngeen bañ a nekk di wax innama unzila alkitaabu ala taifatayn min qablina ngeen bañ a nekk di wax ne ñun day dañoo wàcce woon ab téere ci ñaari kuréel yi ñu fi jiitu woon muy yahudi ak nasaraan yi wa in kunna an dirasatihim la gafilin te ñun day nekkoon nañ ci jàng téere yooyu di lu ñuy sàggane ak xamuñu ko woon aw taqulu law anna unzila alayna alkitab wala ngeen wëlbati ko naan cay ñun day bu ñu wàcce woon ci ñun ab téere la kunna ahda minhum kon ñun ñooy gën a jub yahudi ak nasaraan ya faqad jaakum bayinatun min rabbikum dikkal na leen lay yu leer yu jóge ci seen boroom wa hudan wa rahma dikkal na leen njub ak yërmaande waaye fa man azlamu ana ko gën a mën a tooñ mimman kazzaba bi ayatillah ci ki nga xam ne day weddi aaya yàlla yi wa sadafa anha ba pare dummoo yi woon gannaaw aaya yàlla yooyee sa najzi alladina yasdifuuna an ayatina daañ fay ña nga xam ne dañoo dummoo yu sunu aaya yooyee sual azab gam jaa ñaaw ci mbugal bi ma kaana yasdifuun ci li nga xam ne nekkoon nañ ko di ko dummoo yu mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne yonent yàlla Muusa bi mu ko nattoo ay nattu Muusa matal nattu ya ca la ko wàcceel xéewal guy mottali xéewal gum leen defaloon bani Israil yàlla fekk na leen firaw na def leen ay jaam ci Égypte yàlla génne leen fa xaral leen géej gi wàcce ci ñoom alman wa salwa waaye xéewal gi gën a rëy mooy keroog bi mu wàccee ci ñoom tawraat di téere bu mag boo xam ne junni saar ma nga ca donte ne guddiwul comme suñu saar yi suñu borom mu ne mboolem jub ak yërmaande def naa ko ca xéewal googu itamit la ñuy gis alquran bi mu wàccee borom bi subhanahu wa taala tudd ko xéewal gu rëy al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yonent yàlla Muusa it mu ne tamaman ala allazi ahsana mi ngi noonu ca la nga xam ne nii Muusa rafetaloon na ko waaye it ànd ak xeetam ba nga xam ne dañ koo dañ caa rafetal boole seen borom bi nag gannaaw loolu mu ne yii ni de wàccee naa leen téere boo xam ne téere bu ma barkeel la mbokk alxuraan mi ngi nii yàlla barkeel ko muy téere bi gën a màgg bu mas a yónnee ci kaw suuf fi mu ko jaarale yépp da koo barkeel wàcce na ko ci weeru koor muy weeru barkeel guddi gam ko wàcce moo gën junni guddi wàcce ko suñu yeneen ci yàlla muhammad moom mooy ngën di mbindeef yu dox ci kaw suuf gannaaw ba it daana wax ne ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alquran ci di jàngale alquran dënn bu mu nekk dana barkeel kër gum guñ koy jàng dana barkeel koo xam ne jiital na ko ci ay mbiram mbir moo dugg da yàlla dana ca def barke loolu kon mi ngi noonu bokk na ci barke yi nga xam ne nii alquran barkeel na ko itamit mooy yoon bi nga xam ne moo lay teete ba tàbbal la aljanna fi àddina dara du moom amul lenn loo xam ne doomu aadama mi ngi koy yaakaar ci lu mel ne ajjana te lenn dong moo la mën a yóbbu ajjana muy téere bu yàlla bi kon téere la bu yàlla barkeel boo xamee ne nii lii ci nekk malheureusement lu bari ci jullit ñi tey weccee nañ ko portable da ngay gis ne tey jullit ñi su ñu amoon ay chrono yuy chronomètre li ñuy sëgg léegi ci portable yi ak li ñuy sëgg ci téereem yàlla bi wallahi da ngay fekk la ëpp ci jullit ñi tey la ñuy sëgg ca portable ya double na wala triple ni la ñuy sëgg ca téereem yàlla ba su dee bokk na ca ñuy sëgg ca téereem yàlla ba waaw su dee bokkee ci ñuy sëgg ci téereem yàlla ba waaye lu bari tey ci jullit ñi nga xam ne nii ay jullit lañu da ngay gis ñoo xam ne téereem yàlla bi moom la leen di boole ak ñoom beneen mbir la waaye mbokk alquran mi ngi nii dañoo waroon a lënkoo ak moom ca xam ni tànk yaa ngi takkook alquran yàlla mi ngi lay barkeel ndax suñu borom moo ko barkeel kon lu lënk ak moom rek barkeel mubaarakun waaye nag ndax barkeel boobee lan la ñuy war a jëriñ mooy bu suñ bàyyi dee nañ ko ko jàngal bu ñuy ngénte ba la ñoo tudd ñu jàngal quran bu ñuy sant suñu kër ñu jàngal quran nañ koy teg ci gannaaw oto bi ngir mu kaza wa kaza mbokk déedéet barke bi borom bi nee na fàtte bi uuhu barkeel alquran mooy topp alquran amma képp kuy jàng alquran képp kuy dajale alquran alxuraan ne jaar leen fi yow nga jaar fee alxuraan nekkatul barke ci yow musiba la nekk ci yow loolu ñu bàyyi ko xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni na ngeen ko topp ngir yi ngeen doon ñu ñu yërëm ca mbokk yàlla ki muy yërëm ci ay jaamam moom mooy kam dëppaleeg muy topp alxuraan yàlla moomu yudxilu man yashaau fi rahmati ca loolu mooy ñoom dëppaleeg alxuraan borom bi nag wëlbatiku ci yéeféeri arab yi mu ne wàcce naa ci yéen alquran ngir bala ngeen di nekk naan waaw ñun yàlla téere bi mu wàcce ci yahud yi la ko wàcce ak nasaraan yi muy tawraat ak injil te ñun seen làkk yooyu ñun xamuñu ko borom bi nag ne ni ngi noonu wala ngeen nekk naan ñun de bu ñu yàlla yónnee woon téere ñun ñoo leen di gën a jóp loole mbokk da ngay gis ne ay lay la yu yàlla dagg digganteem ak jaamam yooyu allahuma falilah alhamdu suñu borom bi mu wàccee téereem bu mujj da ko wàcce ila kaafatan linnaas lool it ngir doomu aadama yi bañ a am ci yàlla lay yonent bi alayhi salaam dana woon ballighu anni jottali leen mi li ma yàlla yónni yàlla yónni na ko illa kaafatan li noos yeneen ci yàlla bi yàlla yónni na ko ci njaago yi ci anglais yi ci chinois yi ci portugais yi adduna yëpp benn langue la yoroon muy arab ci la doon wax alquran waaw ca yàlla yónni na ko ci ñee léegi luy pexe mu ne balligu an ni jottali leen ma ca mooy yow mi nga xam ne da ngaa nekk njaago xam nga alquran jottali ko njaago yi ay chinois bi jëlal alquran jottali ko chinois bi portugais bi naka noonu mooy wareef la ci toutes les langues yi nekk ci kaw suuf am koo xam ne jottali na leen kàddu borom bi subhanahu wa taala loolee ngiri lay du am ci nit ñi ca mooy kàddu yàlla ñëw na ci ñoom borom boobu subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne ngiree ngeen bañ a wax loolu wàcc naa ci yéen téere boobu léegi nag borom boobu subhanahu wa taala mu ne dikkal na leen téere boo xam ne yàlla mu ne leeral naa ko boo xamee ne nii yërmaane kese moo ci nekk muy hudan war rahma lépp lu la alxuraan di digal yërmaande la wallahi la ci tubaab bi gën a bañ loolu moo gën a nekk yërmaande ca mooy waa joo xam ne dañuy prouver ne dafa sàcc mu ñu dagg leen loxoom loolu pour yërëm société bi la ndax dana tax ki jógoon bëgg a sàcc su jàppee ne man buñ ma jàppee dañuy dagg sama loxo wallaay dana ko musal ba mu bañ a sàcc ñu ngi noonu ca it protection lay def xattaa ci ñu sàcc ci jamono yi it yi dañoo dund suñuy mbokk yi nekk fii man les plombiers njaay boobu di liggéey lu bari ci jàkka ji dañoo ñëw seen kër sàcc fa ñaari xar te suba ga ci wetu école bi fii gaa yi am ku doon sàcc seen xar ñu jàpp ko biñ ko jàppee ñi ngi ma romb nii ay quatre heures du matin mu naan waay gaa yi baal leen ma gaa yi benn waay na ko noo garaawul léegi dañuy dem rek bu ñu demee sa awra rek la ñuy dagg bàyyi la nga def yaa ngi yaa ngi dégg xawma nu ñu mujj ak ñoom mais la ma la jox rek benn misaal ci lislaam ni muy protéger xatta ki nga xamee ne ni dafa def jéeya islam ne nañ yem ak moom fii mais bu dul loolu nit ñi bu ñu gisee sàcc li ñuy wax mooy ne dey loolu kon benn misaal rek la ci téeméeri misaal pour wane ne yàlla yërmandeem dafa protéger xatta waa ji nga xam ne dafa def jéeya islam lépp yërmande la hudan wa rahma borom bi nag ne waaw ana ko gën a mën a tooñ ci ki nga xam ne dafa weddi aaya yàlla yi na am mbokk ku toll ne sa boroom bind la organise la sa yaram lépp li ci war a am lu nekk mu teg ko fu mu war a teg organise sa biti ngay dégg di gis di wax organise sa biir la nga xam ne mooy sa respiration say deret sa digestion sa lépp li nga xam ne day jaar ci suuf yàlla moom bind la ba pare ne la nag fii mooy yoonu mbaax nga ne yàlla loolu amut tëral yow sa yoonu bopp jaar fa kazzaba bi ay weddi ay yàlla tëral sa beneen yoon jaar fa borom bi mu ne ku gën a mën a tooñ ki mu ne nag ñooñu nga xam ne dañuy def loolu danaa leen jagleel gën jaar tar ci mbugal ci niñ doon bàyyee sama yoon bañ caa jaar yal na yàlla musal ñu ci loolu mu ngi noonu ci xaal yi
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى
barakallahu fiikum suñu borom mu ni hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almalaika mu ndax yéeféer yi xaaruñu lu dul mu dikkal leen malaaka ya aw ya'tiya rabbuk wala mu dikkal leen seen borom aw ya'tiya ba'du ayaati rabbik wala mu dikkal leen lenn ci seen aayay borom yawma yaati baadu ayaati rabbik bis ba mu leen di dikkal lenn ci seen aayay borom day laa yanfau nafsan imaanuha bu ko reegee du jëriñ benn bakkan ngëmam lam takun amanat min qablu ngëm goo xam ne gëmu ko woon lu jiitu kawteef yooyu di ñëw aw kasabat fi imaaniha xayra wala mu faggu ca ngëmam nga la nga xam ne mooy aw yiw qul intaziru inna muntazirun nee leen toog leen xaar ñu nit ñu ngi ñu ngi toog toog di xaar inna alladina farraqu diinahum ñi nga xam ne dañoo teqale seen diine wa kaanu chia ñu nekk ay parti parti lasta minhum fi cheyin yow day bokkoo ci ñoom ci dara innama amruhum ila allah ñoom de seen mbir ma ngay dellu ci yàlla summa yunabbi'uhum bima kaanu yaf'aluun gannaaw ba yàlla xabaara leen ca lañ nekkoon di ko jëf man jaa bil xasana koo xam ne dangaa dikke ci aw yiw fa lahu ashru amsaaliha dana ko dikkal fukki yiw yu mel noone wa man jaa bi sayyi'a ku dikke aw ñaawteef fala yujza illa mislaha kenn du ko fay lu dul lu toll noone wahum la yuzlamuun ca ñoom day kenn du leen tooñ ñi ngi noonu mbokk suñu boroom mu ne lan moo tee yéeféer yi ñëw tënku ci diine xanaa dañuy xaar ba malaaka yi dikkal leen ca mbokk jullit gëmal ne amul kuy dee ci kaw suuf ngay jullit wala yéeféer autoroute wala biir géej ak foo mën a dee lu dul am na malaaka yuy ñëw di la jëlsi malaaka boobu seen chef mi nga tudd malakul mawut kooku mooy jël sa ruux malaaka yeneen yi jël ko ci moom bu ko defee bu dee ko tedd la nga bokk ci ñi ñuy teral bu dee ko tedd di la nga bokk ci ñuy toroxal heure boo demee ba jàkkaarloog malaaka yi su boobaa c'est fini téeméeri laa ilaha illallah dootu la jëriñ dara ca loolu it mooy ku dem ba dee tim ko gis ngeen ko mel ni firawna kàccoor bu bon ba bi mu demee ba gis vague yi fëx jëm ci kawam mu wóor ko ne day lab daf ne gëm naa ne kenn warul jaamu ku dul ko banni israil di rek di jaamu ay saxal laa ilaha illallah mais suñu borom na ko al an ndax léegi nga koy reconnaître te da nga doonul ñu weddi loolu muy benn borom bi mu ne walla boog sa borom ñëw ngir atte leen te loolu mbokk dana am yowmal qiyaama suñu borom dana ñu dajale ci benn place gannaaw ba asamaan yi xotteeku yàlla wàcc ay malaakaam ñu nekk wër doomu aadama yi safan safan gannaaw ba sunu borom dana ñëw ca nam ko soobee atte la nga xam ne mooy ay jaamam ca bu keroogee it yéeféeri daañ feeñal ak ngëm ay yàlla delloo ñu àdduna ngir ñu def lu baax waaye du jëriñ dara suñu borom it mu ne walla mu dikkal leen lenn ci seen aaye borom rasul sallallahu alayhi wa sallam ne bala àdduna tukki dana am ñu tuddee ashratu saa al kubra muy màndargay bis penc yu mag yi nee na bu ci xis ba génn rek ngëm dootul jëriñ bokk na ci loolu lu mel ni daabatul ard bokk na ci loolu lu mel ni jant bi xëy fenke sow heure bu benn ci yooyu amee doomu aadama bi gëmoo bu gëmul woon bu gëmee it dootu baax kii deful woon lu baax it yàlla dootul nangu lu baaxam ca loolu itamit day valable ci waaj yi de képp koo xam ne dem nga ba sukuraat nga xam ne dee taxaw na soo ne woon sarxe naa nangam def naa nangam yàlla du la nangul loolu looloo tax bokk na ci yërmaande yàlla ci xeet bi mooy mu may ñu lu ñuy tudde wasiya mooy alal ji la yàlla wërsëgal ceeru alal ji am nga droit ne bis bu ma deeyee nañ ci def nangam ak i nangam ca loolu moom day doon lu ñuy yàlla di la nangul amma boo demee ba nekk ci sukuraat commencé nag naan nañ def lii nañ def lii loolu yàlla du la ko nangul boo demee ci sukuraat doogu commencé tuub say bakkaar yàlla du la ko nangul inna allaha la yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir fii ak sukuraatoo boo tubee yàlla baal la mais boo xasee ba sukuraat jeex na borom bi nag ne yéeféer yi toog leen ngeen xaar neel yonent bi ne leen toog leen ngeen xaar ñun ñi ngi nekk toog di xaar borom bi wëlbatiku waat ci ñi nga xam ne dañoo teqale seen diine doon ay mbooloo mbooloo mbokk diine bi jóge ci yàlla kenn du ko teqale benn diine la teqale seen diine mooy lan mooy teqale seeni doxalin ca mooy bi yàlla wàccee benn yoon dañoo gis am ñeneen ñu ñëw ne yoon bii de moo gën a gaaw yoon bi moo gën a gaaw ngir am yërmande yàlla di mbokk xam ngeen loolu mooy yonent bi alei salaam diine ji mu wàcce woon sahaaba yi di ko dund ana ñaata yoon lañ créé gannaawam ku nekk jàpp ne yoon bi moo gën a gaaw ci yóbbu nit ki aljanna bal am na ñoo xam ne yoon yeen créé sax nee nañu képp ko jël yoon boobu yow sa yaram araamal na sawara sa yaramu doom sa yaramu sët ba baa juróom-ñaari sët ñoom ñëpp àjjana lañ jëm képp koo may jabar àjjana la jëm ku la may jabar àjjana la jëm yooyu yëpp mbokk da ngay gis ne ay mbir la yu ñu créé am ñeneen ñu créé leneen am ñu keneen créé leneen yeneen ci bàyyi salaam ne yahud yi day ba Muusaa demee diina ja teqale nañ ko juróom ñaar fukki parti ak benn bi yeneen ci yàlla Isaa demee chrétiens yi teqalikoo nañ juróom-ñaar fukki parti ak ñaar léegi nga dégg ñu naan dañoo waroon a mel ni chrétien yi ndax ñoom benn njiit lañ am te xamuñu mbokk de de chrétien yi catholique yi ñoo am benn njiit catholique benn tarixa la ci biir christianisme waaye christianisme ñi gëmee yi sax kenn xamul ñaata mbooloo lañu yaa ngi gis les anglicans les orthodoxes les témoins de Jéhovah les kenn xamul ñaata mormon looy ki kenn xamul dafa bëri ay mbooloo yeneen ci bi alayhi salaam ne balaa adduna tukki sama xeet dana nekk juróom-ñaar fukki mbooloo ak ñett juróom-ñaar fukki mbooloo ak ñett saxaaba yi na ko waa ban mbooloo la ci yàlla gërëm mu ne kii dund li may dund tey maag samay saxaaba gars yi ndax lii leerul ki nekk ci li may dund tey maag samay saxaaba loolu tax nga la way yow mbokk jurit bépp yoon bu la waay woo jëme ca ne la kaay di jaamoo yàlla nii laaj ko lii fan la jóge kañ la xew da ngay gis la ëpp tey li nit ñi riir jëm ca li ci am ay cinq siècle ci kaw suuf bariwul yu ci bari ay deux siècle la am maximum trois siècle la am ci kaw suuf mu lay wan ne kon diini lislaam am na junni at ca loolu jullit ñi xamuñu ko léegi nag après lañ ko créé loolu mbokk nañu xam ne safaanoona ak la yonente boo xool li may dund tey man ak samay saxaaba loolu ñu bàyyi ci xel bu baax moo tax borom bi na ko nag ñi nga xam ne dañoo teqale seen diine créer seen façon diine yu bees yow nekkoo ci ñoom ci dara seen mbir mi ngi ci yàlla yowmal xiyaama bu ñëwee yàlla moo leen di atte ci juyoo bi nga xam ne doon nañ ko juyoo te na am tey ku nekk la nga nekk jàpp nga ne moo gën la keneen nekk yoonu yowmal xiyaam borom bi mu ne keroog ah bu keroog gi laa leen di teqali laa leen di leeral ci la nekkoon borom bi nag di wax ni kiy indi yowmal xiyaama benn tuyaaba day danaa ko ko dublil muy fukk tuyaaba mbokk misaal boobu yonente bi alei salaam mi ñu koy jox ci téere bi ñu jàng tey nee na man qaraa xarfan fi kitaabillah ah fa lahu bihi xasana walxasanatu bi ashri amsaliha la aqulu alif lam mim xarf walakin alif xarf wa lam xarf wa mim xarf nee na ki jël alquran di jàng xarf boo jàng am tuyaaba ñu multiplier le ko par dix waxuma nag alif lam mim de waaye alif bi xarf la lam xarf mim xarf la soo demoon ci fatiha yaa ngi koy fekk cent treize xarf kon waa ji jàng fatiha am na mille cent trente tuyaaba mille cent trente tuyaaba mbokk jurit da ngay imaginer su doon te ne ni loolu di ñu xaar àllaaxira ci àdduna la amoon nga xam ne tey ku jàngoon benn page ci alquran nga xam ne lu mu bon bon da nga ci gis du jóge deux cent ak trois cent ci ay xarf ñu ne la kon léegi page boo xam ne nii jàng nga ko rek boo lambee sa poos fekk fa 3000 yaakaar naa kon nit ñi dañ bàyyi seen soxla yépp guddeeg ba ci jàngal Alxuraan ci waaye maa ngi lay seedeel ne mbokk 3000 ya ngay daj sa poos boo jàngoon page Alxuraan tuyaa ba jalay xaar àllaaxira moo ko gën fuuf loolu ñu bàyyi ci xel bu baax léegi nag am maa ki def lu bon suñu borom mu ne loolu rek laa koy fay. looloo tax ki gën a texee di ci jaami yàlla yi mooy ki ñëw yowmal qiyaama ay un un ëpp ay dix disam tiyaaba bu ne dix bàkkaar bu ne un nga sàggan ba say un un ëpp say dix dix ko mel noonu kenn gënu koo texe di borom bi nag subhanahu wa taala mu ne nii laa leen di fayee ca bu ma leen di fay du ma toon kenn ca àllaaxira lan moo fa am mooy ngëneel bu yàlla di dolli ci ay jaama waaye tooñ yàlla du tooñ ay jaamam loolu tax xatta biir aljanna da ngay gis benn famille yàlla jël ki gën a kawe ci famille bi mu jël desute famille yóbbu leen ñu dem ca kaw muy ngëneelu yàlla am naa ki yeye woon benn daraja yàlla wàcce ko déedéet loolee kon kenn du tooñ kenn ku nekk sa jëf rek nga fay fekk leneen lu cay dolleeku muy ngëneel buy bawoo ci yàlla jalla wa ala yàlla na yàlla wërsëgal ñu ngeen di dem àdduna ak alaaxira
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات فرفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
jazakallahu xayran suñu borom mu ne qul innani hadaani rabbi neel man day jubal na ma sama boroom ila siraatin mustaqim ci yoon waa xam ne yoon wu jubla diinal qiyama muy diina joo xam ne ju jub kocc la waaye ju kawe millata ibrahima xanifa mooy yoonu ibrahima ba jengoon bépp bokkaale wa ma kaane min al mushrikin musul bokk ci ñiy bokkaale qul inna solaati wa nusuki neel sama julli ak samay rey al nusuk day firi ci diine yépp waaye buñ ko dugalee ci ay jaamu yàlla day taxaw palaasu rendiya wa mahyaaya ak sama dund wa mamaati ak sama dee lillahi rabbil alamin loolu lépp dana ñeel yàlla mi borom bindaa fan yi laa sharika la amul kenn ko ma ko cay bokkaaleel wa bi zalika umirtu ci loolu it la moom lañ ma digal wa ana awwalul muslimin man maay njël biinu ñu jébbalul yàlla qul a ghayra allahi abghi rabba neel mu ndax keneen ku dul yàlla lay sàkku mu nekk sama boroom wa huwa rabbu kulli shay'in te mu mooy boroomu képp ku mën a doon wala taksibu kullu nafsin illa alayha te bépp bakkan day du fàggu lu dul luy dellu ca kawam rek wala taziru waziratun wizra uxra du yenu mukk ak yenu kat yenu keneen ku dul moom summa ila rabbikum marji'ukum gannaaw ba yéen ñépp seen delluwaay mooy ci seen boroom fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taxtalifuun bu ko defee mu xabaare leen ci lépp lu ngeen nekkoon di ca wuute wa huwa allazi ja'alakum xalaa'ifa al ard mooy ki leen def wuutaayu kaw suuf wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajaat yëkkati lenn ci yéen ca kaw la ca des ay daraja li yabluwakum fi ma aataakum ngir yem mu nattu leen ci la nga xam ne dikk na leen ko inna rabbaka sari'ul iqaab sa borom yàlla ku gaaw ci ay mbugalam la wa innahu la gafuru rahim waaye mooy aji koy jéggalaatee aji ko yërëmaatee jalla wa ala mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ni yow yeneen ci yàlla bi neel man day yàlla jëbal na ma ila siraatul mustaqim yow mi ñaan yàlla jëbal la ila siraatul mustaqim ñaan nañ ko sànq léegi ñu taxaw ñaan ko suñu borom ne yeneen ci yàlla bi nee leen man yàlla jëbal na ma loolu kon daf lay jàngal nga la waay jurit bul sonn siraatul mustaqim mooy sunna yeneen ci bi alayhi salaam jàngal sunna jëfe sunna yaa ngi ci kaw siraatul mustaqim képp koo xam ne jeng na yoonu sunna jeng na siraatul mustaqim yoon boobu nag mu ne ca la Ibrahima jaaroon daal di jeng bépp shirk ca loolu mbokk dañuy gis ne Ibrahima alayhi salaam bokk na lu mu wane woon ci tawxiid mooy jébbalul yàlla à cent pour cent topp ndigali yàlla ca la mu xam ak la mu xamul ba yàlla joxe ci misaal bi gën a kawe jibbalul yàlla munta paase saxal tawxiid bañ yeew la di la sànni ci ab taal bu jéggi dayoo mais yoonam newul ci loolu mënul paase demal rendi sa doom yoonam newul ci loolu mënul paase mu gàddaay génn dëkkam yoonam newul ci loolu lu tax mu xam ne lay priorité mooy diine foofu la yàlla wax suñu yonent jaaroo ci yoonu Ibrahim bu ko defee ñi naan ak topp yi mënul ñàkk yonent bi alayhi salaam dafa toppoon Ibrahim waaye ak a neexoon ñépp ñi toppaate toppoo seeni sëriñ ne yonent yàlla Muhammad toppe woon Ibrahim alayhi salaam ma ndax gaa yi Ibrahim moo nekkoon yaakaar yonent yàlla bi àdduna ak alaxira ndax Ibrahim yonent bu mosaan waat ci barke Ibrahima lay waat ndax yonent bu mosaan jàq Ibrahima lay woow déedéet mbokk jullit Ibrahima dafa nekk aw yoon wu ma jaaroon yoon woowu yàlla na ko jaar ci noonu la ko sante mboolem yonent yi fi jaaroon suñu borom mu ne ulaayka lazina hada allah fa bi hudaahum iqtadi yonent yi la jaar yi fi jiit yëpp fi lañ jaar jaaroo ci seen yoon jullit yi tamit yéen ñëpp jaar nañ ci yoonu yonent boobu loolu mi moo tax suñu borom ne suñu diina ji mooy millata ibrahim borom boobu nag ne yow jullit déclarel ne sama julli yëpp sama rey yëpp sama dund gépp sama dee gépp yàlla moo ko moom mbokk ibrahima loolu defoon gëm na yàlla moom bakkanam mu nangu koo joxe ca sawara wa gëm yàlla moom alalam moom njabootam mu nangoo jël njabootam déplacé ko lu jege six cent kilomètres yóbbu ko ca àll xonq ba ngiree def ndigalu yàlla ba muy bàyyi ibrahim ba muy bàyyi ismail ko haajara foofu loolu moo taxoon nit yàlla ba mu ne koo rendi ko mu re mu bëggoon ko rendi mbokk li muy jébbalu na am li muy jébbalu ca mooy sa lépp nga jox ko sa borom su dund sa dee sa lépp mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne bokkaale wu ma ko ak kenn ca lii lañ ma sant lii lañ ma sant wa ana awwalul muslimin pare naa nekk njëlbeeni jullit mbokk loolu lu muy firi mooy tey àdduna yépp bu ñu xëyoon génn ci diine pare nga pour yow kese nekk kuy wéetal yàlla ci kaw suuf détermination bii la jullit war a am mi ngi noonu xam ne yow jaamu gi ngay jaamu yàlla sa diggante la ak sa borom na doon àdduna yépp dañoo jaar yoonu jeng yow kese pare nga ngiree sax ci yoonu dëgg ca Ibrahima loolu la meloon suñu borom mu ne inna Ibrahima kaanu umma amoon na benn jamono ci kaw suuf benn bakkan war fi doon wax laa ilaha illallah muy ibrahima alayhi salaam ba mu wootee kenn moo ko gëm ci xeetam muy yonent yàlla luut mu ànd ak moom gàddaay gannaaw bala la jeeg saarata gannaaw bala dem ba yàlla may ko njaboot waaye noonu la ab jullit war a mel pare nekk sa famille yëpp nga pare dund ci yow kese sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëkk bi ngay dund nga pare yow kese dund ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam service ba nga nekk nga pare yow kese dund ci sunna école ba ngay jàngee foo mën a nekk ci kaw suuf nga pare ci yow dong ngay représenté diine yàlla ci kaw suuf wa ana awwalul muslimin borom boobu nag subhanahu wa taala daa di ne lii lañ ma sant mu wëlbatiku laaj ndax man danaa jël keneen ku dul yàlla di ko def rabbu mbokk rabbu mooy kii moom kii taxawee képp koo jàpp ne moom moom xéewal yi jóge ci yi ñëw ci yow mën na ko yokk mën na ko jël képp koo jàpp ne soo jàqee woo ko mu dimbali la kooku def nga ko rabb képp koo xam ne ay ndigalam nga jiital ci ndigalu yàlla def nga ko rabb mu ne nag ndax man danaa jël keneen ku may def rabb muy boroom gannaaw yàlla mi nga xam ne mooy rabb kulli shay mbokk képp koo jël def ko sa boroom xamal ne jaam la comme yow yàlla mooy boroomam mooy rabbu kulli shay te it lu bari ci nit ñi lan moo tax ñuy bokkaale mooy jàpp nañ ne kii liggéeyal na yàlla loo xam ne su ma ko yaakaaree topp ci gannaawam danaa texe suñu borom mu ne déet képp doomu aadama lu mu liggéey boppam lu ko liggéeyal wala taksibu kullu nafsin illa alayha yonent yàlla muhammad mooy ki gën a màgg lu mu liggéeyal yàlla ci kaw suuf daan taxaw na ak njabootam ay Fatima ay Abbas suma baay ay Safiya fexe leen ba mucc ci sawara mënulu ma leen ci yàlla dara wala ñu bàyyi ci xel bu baax kenn di ñëw yowmal qiyaam ñu naa kii kat moom bàyyam ko baax la woon nañ ko dugal àjjana kii kat doom ju baax amoon na ko nañ ko dugal àjjana déedéet mbokk julit yàlla dana jël doomi nuux dugal sawara jël bàyyi ibrahima dugal sawara ndax nit mën naa gën a rafet jëf ibrahima ak nuux déedéet waaye nuux lim liggéey boppam lu ko liggéeyal ibrahima lim liggéey boppam lu ko liggéeyal la taksibu nafsun illa alayha gannaaw ba it loolu mooy tuyaaba yi amma bakkaar yi it wala tazru wazratun wizru uxra kenn du ñëw indaale ay bokkaale ak i kabair ñu ne ah kii mooy kan ñu ne ah kii mooy doomu yeneen ci yàlla nuux ñu ne ah kii kon nañ ko ruse bàyyam loolee mbokk pour nuux fegal ko bakkaar yi déedéet ibrahima nag déedéet keneen ku mën a doon it noonu la amul kenn koo xam ne daañ jël ci ay tuyaabam siddi la ngiree nga dem ajjana du am kenn ku ñuy jël say bakkaar mu teggi la ko ngiree nga dem nga dem fa nga xam ne ni moom mooy sawara nga nga mucc ci sawara allahuma lu dul sunu borom nee na am nañu yenu bàkkaaru ñeneen waaye loolu naka lay demee mooy képp koo xamee ne da nga koo jàngal ak mbon mbon googee fu mu ko defee daañ ko bindal bakkaar bakkaar bu toll noonu ñu yenn la ko yow tamit mi ngi noonu wala yaxmiluuna asqaalan wa asqaalan ma asqaalihim képp koo dugal ci yoonu mbon bu indi dix tonnes de bakkaar yooyu dañu suuf dix tonnes de bakkaar yu bol dollee ko ci say bakkaar lii la borom bi subhanahu wa taala wax naka noonu itamit da ngay gis ne lu baax it koo xam ne da nga koo jàngal lu baax mu jëfee ko yàlla dana la bindal tuyaaba ju toll noonee waaye duñ jël ci ay tuyaaba moom di la ko jox borom boobu nag subhanahu wa taala daal di wëlbatiku daal di ne ñeen ñépp ci seen borom yàlla ngeen di dem mu leeral leen li ngeen xamoon ne doon ngeen ca wuute ca mbokk tribunal maa ngi dégg rek ñu naan suba am na ay kilifa yu mag ci suñu war wàllu réew ñu ngi leen war a atte joxe seeni verdict waaye mbokk loolu ay petit atte rek la waaye le grand atte mi ngi nekk suñu kanam di ñu xaar yawmal qiyaama la yàlla di atte mbooli mi jaamam ci lépp loo xam ne mas nañ ci juyoo xatta bàyyi muy yàlla da leen atte yawmal qiyaama loo ma su juyoog sa soxna loo ma su juyoog say waajur loo ma su juyoog kum mën a doon yàlla dañ leen atte yowmal qiyaama mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne moo ñu def kuutaay ci kaw suuf ñuy remplaçante mbokk julit tey ñuy dund ci kaw suuf quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñoom cent ans ci gannaaw nekkuñu fi woon quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñoom cent ans ci kanam duñ fi nekkati jeex na y avait des milliards avant ñun yàlla bis danañu yóbbu ñun ñëpp mi ngi noonu indi ñaka nekk soob su ko defee jamono boobu ngay nekk ci kaw suuf suñu borom nee na nattu naa leen ci ñii ma xamal leen ñii xamuñu ñii ma may leen alal ñii amuñu ñii ma may leen doole ñii amuñu ñii ma may leen pouvoir ñii amuñu loolu lépp nag ku nekk ab nattu la yàlla di la nattu naka ngay réagir ci loolu yow borom alal yàlla nattalu la ci alal ji nooy def da ngay sant yàlla am da ngay bew yow mi yàlla may nga ñàkk yàlla mi ngi lay natt nooy def da ngay muñ muñ gu rafet di kocc koccal wala da ngay dem pays mi yi wala sàcc wala turñaande ji yow mi yàlla may ngóor yàlla ngi lay xool pouvoir bi nga yor noo koy nar a jëfee ba baa àdduna yépp di jeex doonte nag xam leen natt yooyu mbokk sunu borom nee na ki gën ci ñun mooy ki gën a ragal yàlla yàlla du ne président yi ñoo gën du ne généraux yi ñoo gën du ne borom alal yi ñoo gën ki gën a ragal yàlla ci jaami yàlla yi kooku mooy ka gën ñooñu ragal yàlla ji lala kay may mooy xam-xam moo tax suñu borom mu ne yarfa illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilma darajat il faut bala ngaa ragal yàlla nga xam ña nga xam ne dañoo am xam-xam ñooñu ñooy ñi gën a kawe ci jaami yàlla yi doonte ne ne jaahil du xam loolu jaahil moom day jàpp président mooy ki kawe général mooy ki kawe keneen mooy ki kawe waaye ki xam dana xam ne ki kawe dëgg mooy ki jubag boroomam bokk na ci loolu ki nga xam ne mooy Suleymaan ibnu Abdul Malik dafa bokkoon ci buuru Bani Umayya yi jiite woon empire islam mu daal di jóge Syrie dem aji ji Makka bi mu ñëwee mu ne waaw waa Makka ana kan moo fi ëpp xam-xam ñu ne ko mooy Ata ibn Abi Rabah ne Ata ñu ne waaw mu ne waaw nañ ma ko wool biñ ko wooyee ñu ñëw fekk moom ab jaam la bu jóge woon Éthiopie jógewoon Éthiopie waaye lënkoo woon na ak Ibnu Abbas lu jege fanweeri at di jàng xam-xam mujj waa Màkk yépp seede ne Ataa bi mooy ki ëpp xam-xam ci jamono jooje ku ma sànni ñëw aj Màkk ci moom ngay dem mu daal di ne ko waaw yow yow yaay yaay Ataa mu ne ko waaw mu ne ko yow su tur wi siiw ci kaw suuf yépp noo def ba am li nga li li nga am nit ñi fonk la mu ne ah yaakaar naa de ñaar moo ko waral mooy seen adduna ji dama leen koo bàyyee yaa ngi dégg ñu ne booba atta dara dërëm yoru ko amul dara ca turam dégg na si fépp seen adduna ji dama leen koo bàyyee ci ñoom dañoo soxla sama xam-xam mu ne ko ah waa xam naa loolu la Abdul Malik nekk jamono bi muy àcc moo am lu mu doon wax ak ay doomam ak gaa yi ko wër ñu juuyoo ci mu ne waa nañ dem ca Kaaba ga ñu laaj atta ba xam lu mu ci xam biñ ñëwee moom mooy amirul mu'minin moo jiite empire islam biñ ñëwee fekk ataa gaa yi ko wër ci kaaba gi di laaj muy tontu mu jóge fële rek di xuus ñëw ataa ne ko ay amirul mu'minin mu ne waaw mu ne ko toogal foofu nga toog ba sa tuur ñëw yow tamit da nga am na ñu la fi jiitu yaa ngi dégg ah Souleymane Ibnul Malik toog ca mooy buur gaa yi di ñëw di poser question di jàll di poser question di jàll ba tuuram ñëw mu poser ko question mu daal di koy tontu bi mu delloo mu la jël ay doomam. ne leen leen di laa leen di laa leen di dénk yéen sama njaboot maa ngi leen di dénk ngeen sakku xam-xamu diina ci ragal yàlla ba mu juddoo ba tey musuma sentir suufe gu ma am ci kanamu doomu aadama lu dul ci jaam bii yaa ngi dégg muy ataa borom xam-xam bi taxaw ak doomu aadama yëg ak suufe sama kanam ba mu juddoo ba tey musaam xam lenn dong ko ko may ragal yàlla bu ànd ak xam-xam fexe leen ngeen ragal yàlla ànd ak xam-xam lii ñu yor ko du tus suñu ngóor di du dara yaa ngi dégg lii mbokk kon muy wane ni yow yàlla jël na doomu aadama yi nattu leen ku ne mu nattu la lam la nattoo ñii xëppale leen ay milliards ñee ay ngóor ñee ay lu nekk waaye ngal la waay xamal ne xéewal gi gën a rëy bu yàlla di baax doomu aadama mooy mu boole ko ci ñi xam diina ca ragal yàlla borom boobu nag subhanahu wa taala loolu lay wax ne xam leen ne nag seen borom yàlla day ku gaaw la ci nu muy mbugale ay jaama waaye ko bëri njéggal ak yërmaande muy ñaar yi jullit war a boole ci xolam alxawfu war raja ragal mbugalu yàlla yaakaar njéggalam ak yërmaandeem malheureusement jamono ji ñuy dund loolu doomu aadama yi bëri génne nañ ci ñoom ak ragal yàlla suñu visa àjjana ñun ñëpp suñu nañ ko dugal suñu biir poche dee rek moo ñu koy tabbi àjjana lu tax jàpp nañ ñi mag ñi liggéeyal nañ ñu lu nekk waaye déedéet mbokk jullit àjjana yi borom bi doomu aadama bi da koy yaakaar sawara borom bi doomu aadama bi da koy ragal ba bàyyi yàlla di ko jox ay dossier mu mucc ci sawara tabbi aljanna ca la xelam di doog a dal yàlla na yàlla defal ñu ko defal ko mboole mi jullit yàlla na yàlla yëkkati suñuy daraja fi dunya wal axira yàlla na yàlla may ñu mujj gu rafet ca mboolem jàng yi ñu jàng ci saar bu mag bi di suratul an'am yàlla na yàlla wërsëgal ñu taxaw ci mu nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waa ji nga xam ne médecine da ko condamné ndax bu sarxee yàlla du ko nangu ah kay yàlla dana ko nangu yonent bi alei salaam dana woon fii ak sukuraatul fii ak sukuraatul ki nga xam ne daal moom lañ dul nangu mooy waaj ji nga xam ne mooy déegi taxaw na condamné nañ ko à mort jël nañ ko nii dara desul lu dul ñu caw ko jaasi wala ñu door koy bal même bu dee dara jotu ko it kooke li ngay gis ak tuubam yàlla du ko nangu ndax foofu la firaw na yemoon amma waa ji nga xam ne feebar moo ko dal médecin yi wax ko condamnation boobu loolee ay ay ay njort la waaye ça ne pas dire que ne ne waa ji dafa war a dee ci waxtu woowu ñu ko waxee bari na ñu gis ay ñu médecine condamné yàlla subhanahu wa taala mi dogal dogal la ko soob walaay benn histoire jàppoon naa ne ci livre yi sax la bokk waaye Adja Binta Thiaw bi ngeen xam toog naa ak papa mu ne moom xam na góor gi mu dal foo xam ne neen dañ ko dafa nekkoon fii hôpital Dantec dem maladie genre cancer chronique nekk ci moom biñ demee salle yi manqué ay lal médecin tubaab yi jamono yi ñoo fi nekk mu dóor ko benn dose poison daal di wax gardien yi ne xam naa kii moom suba dañ ko mën a génne ndax day dee jël ñu def yi ñuy def bi ñu defee loolu waa ji tëdd ba xaaju guddi mu jóg di waccu di waccu di waccu gannaaw ba tëdd gardien bi moom jàpp ne dee na mu xëy suba ñëw yëngal waa ji jóg na ko oh man day docteur pikir bi ma jox démb musuma jox pikir bu ñu mel waa ji loolu moo koy génn hôpital loolu moom mi ngi noonu am na koo xam ne nii moom man maa ko xam jarbaat la ci man jarbaat la ci man hôpital principal gii nekk na xale médecin tubaab bi ñoo fi nekk bi mu ñëwee tubaab bi xool xool kii def non non kii moom c'est fini kii moom c'est fini daal di dem ci ñeneen def ñeneen ba wane ne tableau bi ñu defoon calal bi sax mu jënd ko dàpp ne kii quelques heures moo ko dese yaay ji xaaj ci guddi gi mu roccee ko daw ak moom génne ko ñu dem dem di ko faj ay faji wolof Abdoulaye lay mi ngi ci jàkkat yi liggéey na ak moom sotraak ba retraité mi ngi nii dund ak njabootam yàlla na yàlla dolli ko wér mi ngi noonu kon su ko defee yu mel noonu moom du ñu wax ne nit ki merci de merci de ko condamné kon dootul defati bu baax déedéet yàlla mooy def ay ci jaamam lu ko soob mi ngi noonu wallahu aalam naam bismillah naam aleykum salaam wa rahmatullah dama nekkoon ci tàkko fàtte julli tàkkusaan bi ma ñëwee ba ci jàkk ji di ànd ak mbooloo mi julli ba dernier rakam fàtte lu ko julliwuma tàkkusaan waaw su boobaa de moom da ngay continuer julli timis ga rek soo sëlmalee nga julli sa tàkkusaan wëlbatiku waat julli waat sa timis loolu mooy la nga xamee ne mooy la gën a dal xel ci borom xam-xam yi ndax du ëpp ci borom xam-xam yi lañu wax mooy boo fàttalikoo julli ci biir julli julli googee day yàqu amma bu doon dañoo julli timis ba sëlmal sa xel doog a dem julli wa tàkkusaan automatiquement da ngay jóg julli tàkkusaan rek mais comme ci timis bi googa fàttaliku soo sëlmalee da ngay julli tàkkusaan julli waat sa timis wallahu subhanahu wa taala alam waaw alhamdulilah la chaque ne moom am nañ ci téeméeri exemple suñu borom moom nee na benn bakkan du dee ca waxtam jotul loolu nag médecin mën na ko à peu près quatre-vingt-dix pour cent mën nañ ne wax dëgg waaye it yàlla mën na leen a njooy ndax muy faalu li ma yurid naam ah bismillah waaw naam ndax lan la waaw mu ne ndax lan la la ndax baax na wala kulli xaal takk téere de borom xam-xam yi dañ cee wuute su dee téere la boo xam ne nii ay zikr la yu jóge ci yonent bi alayhi salaam ayab alquran la wala zikr yu jóge ci yonent bi am na ca ñoom ñu toléré téere bu mel noonu am na ca ñoom ñoo xam ne dañ ne téere boobu it baaxul ñoom ñëpp it dëppoo nañ ci ne leneen lu dul alquran wala du zikr araam na jullit di ko takk béjjén galeen petaaw cuur lu mu mën a doon loolu mooy la nga xam ni moom dëppoon nañ ca ñu juyoo nag ci azkar yi ak alquran doonte ne ne la gën a mucc ayib day mooy yonent bi alayhi salaam bu dee alquran ci moom la ko yàlla wàcce woon bu dee azkar moo ko jàngale ca moom musul takk musul takkal njabootam ca ñoom dañoo nekkoon ci danger permanent boo xam ne guddeeg bëccëg yaa ngi jihaat guddeeg bëccëg ñu ngi lay bëgg a attaqué la chaque année ñoo gënoon a yee ci takk ay gàllaaj waaye yonent bi musul bind takk musul takkal kenn loolu it moo tax la gën a mucc ci ayib yow jullit tàllalal say loxo di ñaan jëlal say zikir di ko def moo gën ngay takk loo xam ne sa xol da ciy aju du ca du aju ci yàlla wallahu subhanahu wa taala alam waaw ñu mujj ci mbokk bi rek ngeen baal ma waaw bismillah waaw da da tag tag betul ihram déedéet déedéet sujud ba'da salaam sëlmal nga da ngay wax allahu akbar rek nga sujud ñaari sujud gannaaw ba daal di sëlmalaat mi ngi noonu mbokk allahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain